ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw mu établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ Ame, jox gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi li ko ci fondation élevé tabax houle ak raax ci second œuvre bi nag ci di électricité ak plomberie ETDR amno ay boutique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

ñaa bu ndaw. sa petit ñaa sa kone. ah. eh français bandi la wéyu la sàcc la agresseur la. Eh. maa la wax loolu. waaw waaw gisoo mafia bi. gisoo mafia bi. booy lamb mooy fi indi booy loolu après la. leeru sarkozy mi ngi milieu lamb ji lamb milieu la. biiru jaan ah milieu la wute de. lamb milieu la yaa ñu um coupe d'Afrique bi moo ngi nii. mbër mbër mu kii la nu mbër mu yàq mbër mu yàq moo ñu nii rek tàppal la téye micro dafa gën a yomb téye micro dafa gën a yomb wax mais loolu lay wax loolu ma ne téye micro dafa gën a yomb bëri nga ne lan maay gën a la tol lii di Sénégal gi ko gaynde ak kii waaw jërëjëf ma ne fii ci baat li bëri Sénégal yu Mali de yàlla na yàlla dafa jàmm lamb jën fi bu leen ma wax loolu mais ñoo gisee ñaar bu ndaw tubaarikàlla ma sala xale bu na sama xel dal na ñuy répété tout fekku la fi lu bëri xew sa ginnaaw waaw inshallah loolu waaw loolu lépp jàppale ñu ko rek loolu lépp après yàlla mu ni ma parce que daa yàlla ñu ko seetaan may leen ma on gère après yàlla na yàlla suturaat non wali non Liru, Liru. Yo, yo, yo. Liru. dañ koy wësse amel ini. ngeen ini ya? nii nii ah démb loon pare ngeen yéen daal lañu bi mais tey ngeen jël combat ñëpp ne combat bi da ngeen koy perte loolu lu muy def si yéen ngeen ne ki ngeen ci ngeen di bëre moo leen loolu. yaa may dégg. waaw loolu du gan fi ñun. Mhm. ñu ñu am ko ba gars yi jox ñu fo fo bëri ñun. loolu du gan fi ñun. du si yéen. mis ko daal. rëb bi ñu ko jëlee lu mu wax. waaw ñu soog am combat. ñu soog am combat. ñu daan ko. waaw am na ñu jëloon lu mu waaw. la même chose. waaw parce que Cheikh Abdou Karim Mbacke door ko. bu xeexee ñu dumoo ko bëree ñu daan ko. bëree ngeen ko. kon loolu ci kanam la leer inshallah ñu doole ñu mën ñu gën a neex xale ñoo gën ndaysan ba ci bak Cheikh Abdou Karim Mbacke ñoom bëri ñu ñoom pression la ah bak daan dem magal lay def jaajeuf mi ngi non kon nak bagage yaa ngi noonu di génn benn par benn yàlla yaa ngi non di génn benn par benn di dem ci li nga xam ne mooy ci auto sëñ moro ndaysan cey lamb ana ko cey lamb lamb ngi noonu sëñ ay tama la yor ay lan tama tama la yor tama moom tama moom mais soo bëjjën yële ci biir na le. bëjjën yi samp nii. samp na le. mais nag mais nag euh, guy gi man làmb jaaxal na ma quoi. parce que galaaj bu ne ngay gis. bëjjën ak dunku ginaar li dunku naat la. tama bi tama mboq la tama mboq la tama mboq la. ah sëñ Mor tey xanaa daa ko yéen a tëggal tey. Ah, Zarko mais bu sëñ bi ci tous wala wala wala moo ci tous. mais tamale bés bu koy tëggal Zarko sax rek Zarko day fecc. ne fitam weesu na foofu bu koy tëgal mu ciy fecc maa la ko wax gis nga galaaj yaa ngi noonu dugg benn par benn gaa yaa ngi gis nga oto bi oto suñ mor la waaye gis nga bagage yaa ngi noonu par benn la di préparé daa mel na ñoom dañuy préparé bu dem esat mais mais ana sa rox firi man firi yi moo sama xel waaw may sànq génne na ay ay de. ay kalamaan ay kalamaan rek ay pomme yooyu génne na de moom sëñ Mor. ñu noonu. ñaamu ndaw la noonu ñaamu ah, koy seetlu ñaamu ndaw ñu ne la. daa de jàppal na de. ñu ngi ah, mais ndax heure bi teelul. waaw lamb amul teel. Hmm. ñaamu ndaw pare na de ma ne ko Niang bu Ndaw pare na de gis sol gis na mi ngi sol na li nga xam te mooy blouson bi gi na la may seen ci biir waaw may seen ci moom Niang bu teel naa. ñaa tey teel a def daa teel a pare. daa teel a pare waaye combat bi ko laaj nag combat bi moo ko laaj da ngay teel a pare nekk ci li nga war a nekk gis nga mi ngi noonu moom Niang bu Ndaw mi ngi ci biir bés bu mag faaw nga a a pare. a pare na kànde. tey sëñ ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mak bu yëngu ci walu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabakh kër réhabilité wala réfectionné dañu ci taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la mën nañ la jox kaya amee am gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevée tabakh xuule ak raax ci second œuvre bi nak ci ngeen di électricité ak plomberie ETDR amna ñu ay boutique les yoo xamante ne lu jëm ci électricité plomberie am les ko lépp luy jëm ci bâtiment moo xam menuiserie bois aluminium métallique charpentier les la établissement bi di def maanaam ci gàttal ku ñëw ci ETDR boo bëggee ñu tabaxal la boo ñu jaay la nga ci carrelage ak peinture mom. ñun ñoo ci toog boo amee terrain bi andil ñu ko ñu le plan dernière génération boo yoree sa magasin itamit bëgg ko defaraat ba mu baax ku fa dugg gën la naw jox la si ñu ñu defaral la lu ko ba mu baax